mbokk yi gannaaw bu nu sante sunu boroom julli ci yonentam ba seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla na nu yàlla boole jéggal tomb bi ñuy fàttalante dañu koy teg ci li yàlla di maye nit ña di ci ëpplante ku nekk nu muy fexe ba am ca yàlla séddalewul day maye la muy maye ba jaam ñi di ci ëpplante ku ne ku bëgg a doon diw ndax mooma ca ëpple am na yoon yi ca jëm loolu la ñuy wooye fadlullah ann alfadla bi yadillah yutihi man yasha wallahu dul fadlil azim fadlullahi taala nag di li yàlla di maye jaam ñi di ci ëpplante mooy yàlla dimbale nit ki nit ki xool fa mu ko joxañ mooy tawfiq dañuy misaal tawfiq ci koo tàggool léegi te nopp ya neexut du dégg ba noppi mënut wax mu ne wërëñ fatte fi dara lu munta ñak wala loko ko ñak jox wala lu lu la yóbbaaleel te nga bëgg mu delolo te ay yi taxul mu degg la yooxu taxul mu degg la ma ngay dem ma nga ne ngeen di dem ngay jaaxle noo def far mu nga wakk ko lolou may tawfiq yalla nako yalla defal te depp lañu ak ndigeelam te yalla bu mu ñu seen fu mu ñuy wakk fu ñu nek waye it ndimbalu suñu borom te mooy gindi nit ki mooy gindi nit ku gindi ko rek yi moo dox ci kawam mooy tax nit am tawfiq fii ci àdduna gindiku lu mu dugg am ca ndam bu dee ci àdduna bu ca àllaaxira nag mooy jannatun arduha samawati wal ard mooy aljanna joo xam ne nit ki daf ko fay am jaam bi aljanna joo xam ne lu ca as pokkus tuuti tuuti gën a yaatu asamaan ak suuf bi ñu laajee Omar nag lu gën a yaatu asamaan ak suuf fu muy nekk moom ak nuñ ko natte Seydina Omar da ko ne ana fu guddi di nekk bu bëccëgee ak fu bëccëg di nekk bu guddee ak fan la noor ak nawet di nekk fu ko yàlla denc yàlla mu denc loola denc na lu ëpp loola fuuf yooyu lañ xamagul waaye it ku fadlullahi dox ci kawam na xam ne yàlla fàttewut kenn waaye nag moom geesu na ko ndax am na lu mu ay moroomam yi wut ni moom fii ci àdduna bu àllaaxaraa yi day fés mën na faa fés ku gën a teg tànkam fi ko yàlla teg lu mooy ëppale bu ëllëgee waaye léeg mu dugg ci ay jafe-jafe it ba yaakaar ne du ci génn mukk fadlullahi daw ci kawam mu génn ca du xam lu ko ca génne léeg-léeg mu nekk ci euh, dund gu teey goo xam ne ñëpp bëgg nañ caan ñëw mu xëy xëy ñàkk yor lu ñëpp bëgg mu xëy xëy ñàkk ko la ko waral mooy daal teggi tànkam fa ko yàlla teglu rek wala mu néewle woon lool xëy xëy bari le lool wala mu bari le lool xëy xëy yëf ya tàmbalee dem mu xëcc xëcc mu të te danañuy wax ne fadlullahi buy ñëw ak diis mën na koo xëcc diis mooy fiil euh, yu wëñ yu sew yi lu wëñ sew sew mën na koo ñoddi mu dikk ndax yàlla koy puus yàlla koy puus day xëcc muy ñëw mu defee ne mooma waaye buy dem ak bar mënu koo téye bar mooy buum yi ñuy yeewe bato yi su xasee bay dem dara mënu koo téye yàllaa ko ñoddi kon fadlullahi mën nay wéy ci suñu dund di am ñuy gis luñ ëppalee suñuy moroom suñuy nawle li feeg ñi ngi ci fa yàlla joxañ ku fa nekk du jaaxle ci dara moo tax am na yent yoon yu fa jëm ba ci jiitu mooy sàmmoonteeg waxtu yu juróom bokk yi ku ngeen gis mu sàggane waxtu yu juróom lu mu am dana ko ñàkk lu mu am dana ko ma a ñàkk nit ñi nag mën nañoo bañ a gis ne yoretul lam yoroon waaye moom dana xam ne lam yoroon mi ngi mi ngi dem te du xam lu koy yóbbu moo tax bu nit ki sàmmoonteeg waxtu yu juróom na xam ne am na fadlullah am na lu mu ëppalee moroomi jaamam yi su teggiwu tànkam dana raw ñu baree baree baree baree bari ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi yàlla di melal julit boo ko gisee nu muy mel dafa joxe yonent bi ak i saxaabaam misaal danee muhammadun rasulullahi walladina maahu ashiddau ala alkuffar maanaam ku leen teg bët te bokkoo ci ñoom saw fit danañ tërët ndax da leen yàlla melal leerug jege na ci ñoom ak personnalité bañ yore personnalité jullit nag jullit tàggu moom personnalité ci suñ jamono mooy loo xam ne ak pal rek la ëllëg si mën na koo ñàkk waaye personnalité bi ab jullit di yore du tàggoog moom ba aljanna su ba su teggiwu tànkam nee na fu leen ku ab jullit gisee dinañ tëreet waaye soo duggee seen biir ni ñoom di jullit ni ñoom da ngay gis ne ñang nañ ni ci ko waye dara ko ci seen biir lu du yermande kese kese ndax lay firnde ja moy da ngay gis ay mandar ki seen jeeya man nga baña gis ay ñuul ñuul wala ay wex wex ci jeeya ndax su jor yu yag amna na wut amna ñi wut ay ñuul ñuul ci seen jeeya ndax da am lu ñuy su jóot waaye màndarga ma suñu borom di wax du ay wex wex du ay ñuul ñuul waaye leerub jëlay doon fokk ci day leer nañ day neex xol nee na rukkaan su sujjada foo leen fekk buñ nekk du julli ak sëlmal ña nga ca loo xam ne moo julleeg sëlmal naafilaam la ci wax ak ci jëf loola nag dañ koy dañ ko doon def ngir ndégalu suñu borom ak itam sàkku fadlullah ak ngërëmal suñu borom yabtaxuuna fadla min allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ñaaral ba mooy wéeru ci suñu borom bokk yi wéeru ci suñu borom day dolli ngëm lu ci nit amoon lu mu tuuti tuuti bu bàyyee lépp wéeru ci suñu borom subhanahu wa taala ak ngëmam day dolliku day gën a dëgër te ku ko seex yàbbiwaat ko bu ñu ci alxuraan danañ ca fekk alladina qala lahum nnaasu inna nnaasa qad jamacu lakum faxshawhum fa zaadahum imaana xareb Uhud lañ wax ne Seydina Hamza dañ ko ne kay xool noon yi niñ toll mu génn xool fii ba fee ne ah lii de tiitalul kenn ñu ne ko xanaa xamul li ngay wax li ñor yëruñu ko di mooy leen sama bët bi mos a tegu ci lu may ragal faxshaw faxshawhum ña ko koy nettali faxshawhum fa zaadahum imaana lu mu leen ko dollee xasbuna allahu wa ni'mal wakiil fanqalabu bi ni'matin min allahi wa fadlin lam yamsashum suu'un واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم نيتال بموي دك جانغ القران دك جانغ القران نك تك ور فو تولو يانغ اب جوكي دي لانغ لانغ باج نان فوكو غيس اب كامل نتي لوخوم لول امول بن جاري امول جاري موي ديفا تكور يروتو كامل بتا يالا تاخ واي نيت ني خاصنكو مي موم كيب دال دك جانغ القران موي لان boo xëyee lu mu néew néew ni ko sëriñ ba jàngale ci Masaalikul Jinaan nga bañ koo jéeg jël benn bis booru jàng alxuraan doonte yetti isib la ci ku mokkal alxuraan ku mokkal alxuraan lam ca man bañ koo jéeg benn bis suñu borom noonu nee na loolu ku ko dëkkee euh, fadlullahi mi ngi ko tiim su bàyyiwut yàlla dana ko ko yoor fadlun wa rahma يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ممأك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون كن كو دك جان القران دون تا دانيو كوي رومب ليك دي ام لوني كوي جوخ مو ديكو جاري نيو جييت بوم باي نيو جوخ كلام كو جوخ يالا كو فيبال رومب نا نانغي مي جوخولين fadlullahi tàmm naa yore ci loxoom waaye kuy jàng alxuraan it ba sax ca ba sixéñ ca dëgg-dëgg doo ko gis mukk muy def lu ñu koy xeebe ndax inna hada alqurana yahdi lillati hiya aqwam day fekk ku jaaroon ci yoon wa mu gën ko ko yombalal fekk koo xam ne ma ngi ciy jéem a jaar mu tegloo ko ki tànkam tuuti ko mën a teggi mukk yàlla ñu ko yàlla defal li ko waral mooy maa kaana xadiisan yuftara bukkut ak yii ñuy jàng di ko mokkal bokk na ci yi waroom xam-xam yi tënk ne bokk ci li wutal alxuraan ak yu bari yu ñuy bind ci adduna bi di ci sukkandiku mooy mooy benn téere bu toll ni mu toll ñu di ko mokkal mbooloo mokkalandoo ko bokk nuñ ko xamee maa kaana xadiisan yuftara mu doon lu dis gann nag loo xam ne yàlla nee na woon ci alxuraan suñu ko soyaxale woon soyaxal mooy def ko sunguf doj wuñ ko sotti doj yu mag yi ngeen di dégg ñi ko xamul kuy dem ndakaaru léeg-léeg ci yoonu gaaw bi am na doj wu muy romb ci digg buy tolloog kees ñu xar ko ci digg ba nee na alxuraan toll na ci diisaay ñu te koy def ni mu ko def rek ndax nit dafa dëgër bopp waaye bu ñu ko defoon sunguf suñ ko ci doj yooyee doy yooyee maasaloo ba mel ni lu ak doj nekk foon walla boog yu gën a diis aw doj بوني مش الخان دنج فيك ولو ان قرانا سجرت به الجبال او قطعت به الارض موي نانا ني ميني داجو مو توج سوكو سي يالا جوبلو وون استومب سو نداو سي القران دارا توتي وتي صاح نون لنجكو مانا داي خار نانكو بيغ او كل ما به الموتى بل لله الامر جميعا كون لولو بوك يون ويني نيت ام فضل الله موي جولي fonk julli ñaaral ba wéeru ci yàlla ñetteel ba fonk jàng alquran ñetteel ba wala ñeenteel ba mooy fexe ba fóot sa bakkan ba mu set wicc ci jikko yu rafetut ak jëf yu rafetut ndax yooyu day xañ diggante nit ki ak fadlullah yàlla nañ ci yàlla musal jikko ju ñaaw ak jëf ju ñaaw yàlla nañ ci yàlla musal موتا القران دي وخني ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم سدلون فضل الله عليكم لم لن دي ماي نين دي ابلنتي اك سيني ناولي اك يرمنديم كين دو مل ني مل وايي نا كودوخ جيم سي يالا غاتاندو كودوخ سي ديكو جي رافات تاغات سا ديكو جي اك جيفي رافات يالا غاتاندوكو waaye yoon wi jëm ci fi seytaane dëkkit ba tey musal nit mooy fexe ba am jikko yu rafet di def lu rafet ndax walaw laa fadlullahi aleykum wa rahmatuhu la tabaatum sheytaana illa qalila su dul woo nag fadlullah mooy li yàlla di maye te di ko may jaamam yi ku ne di ci ëppalanteeg sa moroom bu dul woon ak loolu ak yërmande suñu boroom da ngeen jaar yoon wa seytaane jaarlu wala bokk yéen ñëpp wala lu néew ciy mucc yàlla nañ bokk ña ciy mucc ndax xalil lu tuuti fa sunu borom lu bari lay doon si ñun ku ca bokk sa affaire baax yàlla noonu yàlla defal fadlullah yoor nu ko tañ sabab lu ko fonk waxtu yu juróom fonk waxtu yu juróom sëñ bu mag bi nee na wala takun muaxira salaati an waqtiha bi gayri udrin yaati bu kenn toog ba waxtu julli jot te julliwu ko lu mu ko fekk na ko bàyyi te dem julli ji suñ koy dàq fa muy liggéey sax jar na ko ndax ëllëg ak payam ki koy liggéey la yoru ko ki koy liggéey la payuk tayam la yor te léegi tey mu ñàkk ko léeg mu dem fàtte bàyyi fa alal ja wala alal ja dem bàyyi ko fa ñu bokk nekk ay chômeur noo ngi ndokkeel nag soxna soo xam ne su ko déggee dana ko xam fan yi ci France France la dem ma nga fa di wuti ab liggéey ñu ne ko sa muuraay gi dang koy dindi wala duñ la jox liggéey mu ne jëraluma ko ab liggéey jëraluma dindi sama muuraay gi dem feneen ñu ne ko muuraay gi mu ne xanaa ko man maa musoru ni ko africain yi defee ñu ne ko bëgguñ ci dara boppam ne mu ne jëraluma ko na na ca wéet na ca wéy te deseeg yàlla yàlla jeexalu yàlla dese na lu bari lu dul France يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين امين